ku internetu Dakar Midi ñu amati mbégte ak kontaan te nee naa tey ñu ngi def reportage bi nga xamante ni tey lu jëm ci mbirumu Adji Sarr ak Ousmane Sonko mais di tourné tamit di waxaat li nga xamante ne mooy li xewoon fii ci jamono yi nga xamante ne mooy 8 mars ay xale yu bari ñàkkoon ci seen bakkan ah di ñaanal ñooñu tamit yàlla na yàlla xare àjjana mais ñu fas yéene sekk ak sénégalais yi ay waxtaan ñu jëm ci li nga xamante ne sortie bi nga xamante ne Adji Sarr def na ko ci procédure diggante moom Ousmane Sonko ak li nga xamante ne mu ngi koy jànkonteel ci jamono ji ñu toll ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay fay Eh, gis nañ Adji Sarr def benn sortie ka fan yii nii fan yii néew RFI wax ne li nga xamante ne tey mooy jamono ji ah, coono yi muy dund ak li nga xamante ne tey maanaam ñàkk sécurité bi nga xamante ne am na ko ak jafe-jafe yi nga xamante ne actuellement mu ngi koy dund ba mu ngi ñaan li nga xamante ne te mooy état bu Sénégal moom buñ ko mënoon may sax mu gën a réew mi moo koy génn yéen en tant que sénégalais ak li fi xewoon tamit bi passé buñ bëggee indiwaat tamit ah, ci problème Adji Sarr lan lan la def yéen Sénégal. ah man su ma soñoon moom affaire ñu bàyyi mu nag xam nga yow affaire bi mu amee rek ñaata nit ñoo ci dee ci loo xam ne nii problème yoo xam ne nii tamit xam nga yàgg na fee am yàgg na fee am te amul moor amul dara nit ñi sax daanaka ñu koy yëg du bari xam nga mais tamit seq na ko koo xam ne nii tamit peut-être xam nga politicien la xam nga am na tamit lu waa dëkk bi yaakaar ci moom ni xam nga mën na nekk président affaire yooyu noonu tamit ñu bëgg koo yàqala ah, man foofu laa gisee de waaw mais loolu moom yàgg na am. ay viol ak yooyu yàgg naa am te amul coow li comme mel comme coow Ousmane Sonko bi nii. Mhm. tey ba li nga xamante ne mooy Adji Sarr tey mu ngi koy sàkku tey ci réew mi ah di sa di ko sàkku tamit ci li nga xamante ne tey mooy état di Sénégal ko ko waroon a génne dëkk parce que ne dem ba mujj gi mënatul nelaw xam nga day dem ba comprendre tul lan la parce que moom tamit bëgg na vivre comme sénégalais yi génn ci mbedd di doxi soxlaam am na ay yite mais dem ba loolu lépp mënatu koo def. mu ngi koy wax ci li nga xamante ne mooy ci euh, interview bi nga xamante ne bi ko RFI defal tey loolu lan nga ciy wax en tant que sénégalais. man li ma ci wax mooy wax man mënu ma ni Ousmane Sonko seq na ak Adji dara mënu ma wax ni tamit sequt ak moom dara yàlla moo xam quoi xam nga mais ak lépp lu tamit lu mu ci mënti demee rek Adji saar jigéen la tamit sénégalais la yaa ngi dégg cër bi fi Sonko am moom la fi am xam nga kon lépp lu ci mën a am daal na justice tamit def liggéeyam quoi. xam nga te dayee tamit njaaxaanaay xam ni euh, ñaar ñi muy àtte ñëpp ay sénégalais lañ waaw ku ci xam ne kooku moo tooñ ah, bu fekkee Sonko moo tooñ ñu amande ko bu fekkee dañ koy tëj ñu tëj ko comme ni def ay moroomam rek bu fekkee tamit li Adji Sarr di wax nekkul moom it yoon daan ko rek loolu la daal waaw mais affaire daal su ma soñoon daal warta am ay far quoi ndax ñoom ñaar ñëpp ay sénégalais lan xam nga ay sénégalais lan kon warul am ay far fee bu fekkee li Adji Sarr wax dëgg la a ñu xool ko xool ñu xam ne lii mu wax nii kat am na waaw li yoon li ci yoon wax rek ñu def ko mais wax dëgg yàlla ay manifester affaire yooyu moom Sénégal instant bi moom wul loolu quoi waaw soxlawul loolu. bu mois de mars xel dem ci lu bari xam nga jamono ji passé yi fi xewoon ay yeneen extra bañ am si ay quatorze morts ay xale ñàkk seen bakkan tey lan ngay wax tey li nga xamante ne mooy ndaw ñi ak famille xale yooyu tamit. waaw famille xale yooyu moom xam nga ñooñu moom mi ci ñàkk seen bakkan ñàkk nañ seen bakkan ba pare ba pare tamit loolu du woon parole bu Adji Sarr bi kase ndax boobu sénégalais tamit dañoo meroon xam nga ndax da fekk tamit problème bi daje fekk ay yeneen problème xam nga ay coronavirus xam nga ay couvre-feu nit ñu sonn xam nga liggéey bi demewul noonu xam nga sénégalais tamit mer yooyu lañ dajale woon quoi mais du woon problème Adji saar bi kase du woon problème Adji Sarr bi kase de sénégalais ñoo meroon looloo taxoon manifestation boobu am quoi mais du woon problème Adji Sarr bi kese de mais nag euh, non loolu moom dootul am hmm. loolu noonu non dootul am de yaakaaruma ko quoi yaakaaruma ko. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal. waaw yow maa ngi lay jaajëfal yow it maa ngi lay jaajëfal bu baax. comment papa ñu ngi lay nuyu. Euh, ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay. la. waaw man maa ngi tudd Omar jaw Fall. Euh, papa ñu ngi ñëw ci li nga xamante ne mooy coowal Adji Sarr Ousmane Sonko gis nañ ñu ngi ñu démb Adji Sarr def na benn déclaration fële nga xamante ne tey mooy RFI am na benn interview bu mu fa def ci ñi nga xamante ne mooy ñàkk sécurité bi nga xamante ne bi mu nekkee ci réew mi ak ñàkk kaaraange bi nga xamante ne tamit mu ngi ci tiitaange dikkal na ko lool ba mu ngi sàkku ci li nga xamante ne mooy état du Sénégal ndax mënuñu mënuñu ko bàyyi moom mu mu tukki parce que dem na ba ne que moom bu commencé léegi sax maanaam mënatul nelaw an balaa moo nelaw que mu jël dara tëdd nelaw léegi en tant que Sénégalais lan nga wax ci loolu. waaw bon man li ma ci wax soriwul moo je pense que ne nit moom lépp looy def wala nga koy wax day ci xalaat ëllëg quoi c'est important mën nga wax tey benn affaire mu topp la waaw man loolu laa ci gis quoi parce que heure bii daaw li fi xew Sénégal ñëpp gis nañ ko kenn rafetlu ko waaw ci ay wax parce que tamit nit moom ñun suñu xel rek la ñu yor waaw dañuy yor xel dañuy xalaat bu ñu déggee ay information dinañ xalaat analyser ko xool lan lan moo ci war a mën a nekk dëgg ak lu ci warul mën a nekk dëgg waaw coow li mu amee ku ne wax na fu ne wax nañ fa dégg nañ lu ne waaw mais man je trouve que en ce qui me concerne man man je trouve que ne affaire fo dafa oyofoon lool lool oyofoon na toll quoi waaw mënuñu ci woon wax loo xamante ni nit ñi peut-être sénégalais à 100 pour cent dinañ ko gëm boo xoolee genn wàllu Sénégal yëpp kenn gëmul woon wax jooju waaw moo fi tax moo waraloon coow loolu yëpp am ba ñi ci li ci am yëpp am ci waaw ñuy profité di jaale ñi nga xamante ni ñoo ci génn àdduna di ñaan yàlla mu xaraleen àjjana waaw te yooyu yëpp bañ amat daal parce que Sénégal fi mu toll nii stabilité lañ soxla quoi soxla wuñu ay coow ay aji ay ñun taluñu ko quoi borom kër yi tal nañu leneen waaw instant bi dund gi métti na li fi nekk bëri na location bi métti na nit ñi liggéeyatuñu xam nga loolu moo ëpp solo ay aji saar man suivre information bi mu wax et puis saar bu fekkee ne moom dafa am problème nëbb nañ ko fenn xaw ma nëbb nañ ko xaw ma am nañu ko war na am sécurité bu ko yor. war na am ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko doon ñoom ñoo ko doon suivre di ko top war nañu am Adji Sarr nu mu def ba wax ci média yu mag yi ci àdduna bi tey kooku amul doole doo fa wax ni mu def ba wax foofu kooku yëpp xam nga war nañ ñu ko leeralal kon ça veut dire que affaire bi léegi sa international c'est international peut-être moom xeeb na euh, justice suñu réew wala xeeb na journaliste suñu réew ba mën ba génn na mais aussi ñun Sénégal euh, defe naa ne suñu justice <laughs> am ñun ñun ñun ñun fonk nañ ko wóolu nañ ko suñu journaliste aussi gëm nañ leen. boo gisee ay cadres donc euh, dañuy gis moom comme des fois bu defee déclaration tey bu ñu bu ñëwoon tey si benn boîte boo xamante ne tey boîte de presse la bu ñëwoon tey benn euh, et cetera ñu baal ma bi comme bu demoon benn TFM wala benn RTS wala benn feneen ak feneen def fa déclaration tamit boîte boobu moom du nekk si risque parce que nee na fu ñu def déclaration rek. ñooñu dañuy nekk ci li nga mooy risque gars yi dañu di menacer est ce que tamit nekkul loolu moo ko mu dem def euh, euh, kii euh, reportage fële RFI. non man je trouve que loolu ay rek parce que gisuñu benn boîte bu ñu fi menacé man boog gisuma benn boîte bu Adji Sarr benn benn benn boîte de presse boo xamante ne Adji Sarr wax na fa ba ñu menacé leen wala ñu wax leen dara génn na def ay parce que léegi Sénégal moom foo waxee moom yomb na man fi ma toog ni mu ngi sama téléphone wax li mu bëgg te àdduna bi yëpp gis. kon loolu alibi la su ma waxee ci journal bi wala yooyu ñu dem menacer la no loolu moom loolu dëgërul quoi waaw Adji Sarr man je pense que ay parents ñu ñoo war a jël seeni i responsabilité jël seen doom xam nga lu dul dëgg du yàgg lu dul dëgg du yàgg waaw li nga xam ne moo dul dëgg du yàgg jël seen doom defaraat ko balu sénégalais yi àq man laa gis ñi ko topp ñëpp seen bopp lañ fa nekkal wax ju bari ju yëpp ku si nekk sa sa promotion bopp nga wut gisuma si dara lu taxaw waaw man daal bu ma doon ay param Adji saar maa leen woo ñu jël seen doom defaraat ko waxtaan ak moom xam nga jéem a dindi yi nekk ci boppam parce que mën na ko indil ay yeneen séquelles yoo xamante ni jaru ko adduna jaru ko alal jaru ko waxuma ne alal moo tax mu def ko mais jaru ko waaw luñ lépp lépp luñ ko si mën a dikk wala ñu mu yaakaar ko jaru ko waaw. jaru ko man daal xalaat boobu laa wax rek ne sénégalais yi nga am nañ yeneen problème quoi mu toll nii dëkk bi nu mu méttee nii ñi taluñu ay aji saar. léegi bi déclaration bi mu def nan la leen def ci que ñëpp xam fi xewoon kenn ñaanu yàlla mu amat ci réew loolu moom loolu moom kaw ma dina fi mën a amaat quoi waaw parce que nit ñi ñoo talatul ay aji saar ak i keneen ku mënti doon nit ñi tal nañu lu ñu jox seeni waa kër ñu dundee école baa ngi nii gis nga booy pour ñu jàngi si problème la man sama waa kër toog nañ deux mois jàngiwuñu démb la ñuy doog a jàngi tu trouves ça normal kon am nañ yeneen préoccupation du ay Adji Sarr ay Adji Sarr ak ay ku mënti doon taluñu ko sénégalais yi ñoo ko talul fi mu ne nii li ñu tal mooy nu ñu def ba nit ñi dund nit ñi nekk ci ay conditions yu xaw a tane loolu lañ tol mais tolluñ ci ay Adji Sarr même bu fekkee mois de mars bi la amoon mais nit ñi xoolal xoolal dëkk bi nit xam nañ ñëpp xam nañ déglu nañ Adji Sarr mais fi benn problème nit ñi ñoo ko talul. taluñu ko quoi franchement waaw nañ ñu may ñu dund jéem a xool lu ñu def ba suñu njaboot yi jéem a dund am lu ñuy am am ay liggéey ak yooyu mais ay aji saar ak ay nemp xam nga ñu ñi taluñu ko quoi franchement waaw ñuy commencé sax sonal dafa commencé sax sonal sénégalais yi xam nga ñu jotam quoi franchement na ñu dimbale ci loolu quoi waaw jaajëf waaw waaw merci beaucoup loolu la salaamaaleykum ñu ngi leen di maa ngi lay fay laaj tur bi nan la Mbaye Thiam la waaw Mbaye Thiam ñu ñëw ci li nga xamante ne ni ki mooy euh, coowal aji saar Ousmane Sonko ci mois de mars bi ba yàlla defaat tey ñu ñëwaat ci li nga xamante ne tamit mooy mois de mars mais gis nañ ki nga xamante ne mooy Adji Sarr def li nga xamante ne ni tey benn déclaration wax fële ba jamono ji nekkatul ci li nga xamante ne tey kaaraange maanaam amatul jàmm parce que bëgg na tamit yoon def liggéeyam atte leen mu di moom ak Ousmane Sonko mënatu vie comme ni sénégalais génn et cetera yooyu nee fu mu dëkk sax day tuxu dem dëkk feneen parce que day bañ ñi xam fi mu dëkk ñëw di ko fa attaqué et cetera affaire yooyu bakkanam daal mu ngi si xottu gerte en tant que sénégalais nga wax ci loolu. dëgg la euh, ku mos a dund viol saa à am sœur bu nu sa violé wala nga am mag wala rak wala doom wala jarbaat bu ñu sa nga xam viol lu metti na boo dundee moom ci kër gi da ngay xëy xool ko dafay mel ni dafay dafay absenté lu dafa metti ci nit psychologiquement dafa métti kon bu waxee ne dañ ko violé tamit Sénégal lambda comme ñëpp am droit comme droit moom bi mu am porter plainte dañ ko war a topp wut ay ñu ko jàppale ci loolu mu topp ko xool fu mu fu muy mujj ndax dëgg la wala dëgg dëgg la am du dëgg yàlla rek moo ko xam mais comme plainte la buñ ñu ko war a dimbale nañ ko dimbale réew mi nag déposé plainte dafa metti surtout bu fekkee sa loxo jiitu sa ginnaaw lu compliqué la man xam naa ki daal parce que xaw am lu mu ci xaw a dund lu mu ci xaw a dund ci ay plainte lu lu metti da nga ciy dem a dem a dem ba finalement da nga koy mujj sax bàyyi da nga koy mujj bàyyi loolu mu wax tamit dëgg la xat na ci dëkk bi moo ci la dund moo ci la lekk moo ci la naan moo ci la nekkatu en sécurité. Mm-hmm. en sécurité mm-hmm. buñ ko bàyyi léegi gars yi gars yi mën nañ koo sàkkal pexe. te lu wax noonu lu dëggu la dafa war a dund comme nii ko nañ ko atte ñu ko war dimbali taxaw ko dimbali ko mais war ñu ko war koo xas ak di ko ci wax loo xam te ne bii naka su du noonu ñu ko mën a jàppale nañ ko jàppale te yàlla rek tax dimbali ko aussi loolu la. Euh, toujours Sénégalais dañuy ragal li nga xamante ne mooy coowal li fi amoon bii passé ba ay xale ñàkk seen bakkan lu ci toll ne quatorze morts ah, actuellement dañuy ragal saa bu mois de mars bi ñëwaatee nekk loo xamante ne dootuñu ko fàttee ci maanaam si réew mi Sénégal. Ah, est-ce que xel tamit du demaat ci loolu yëngalaat lu mel ne dossier Adji wala eh, waxi Adji yëngalaat tamit réew mi mbaa loolu tamit du dañuy ragal bu yàlla bu mu amaat tamit ci réew mi loolu tamit mbaa Sénégalais ñu ngi gën a bàyyi xel bu baax a baax. yàlla bu mu fi amati waaye lu mën a amaat la tamit ndaxte réew moom moo xam ne ñiy taxawal lu ñu ëpp ñuy liggéey ñamul métier dañoo bari ñi jàpp ci dara dañoo bari jeunes yi fi nekk liggéey dafa am jot dafa bari te am réew bu ne ba jeunes ñi ëpp jot rek ça devient très compliqué te fii nit ñi am nañ jot jàng nañ ba pare liggéey nañ ba pare amuñu lu ñu def. xëy na xëy na naa ne ataaya ak naa ne gaf a taxawaalu te boo taxawaalee benn manifestation boo xam te ne bii nii da nga taxaw rek bokk ci ci mouvement bi doo ci doo ca gagné dara mais nga bokk ci rek. c'était juste pour ànd ak ñoom ànd ak ful bi fuñ daw parce am nga jot xëyoo gontoo tey ki nga xamante ni bii dafay liggéey jàmbur fële ci usine boobu xëy si ñu dàq ko day xëy ci la yaakaar mais benn jot fii la toog naan café wala mu naan ataaya bu gisee fii benn manifestation bu ci mënee dugg la ciy dugg loolu la rek réew mi nit ñi am jot état bi tam ne dimbali jeunes ba jeunes yi a am lu ñu jàpp mën am lu ñuy liggéey dëkk bi li muy doxee métti na bi passé mais empêché nañu bari empêché nañu liggéeykat yeeg ñeneen ak ñeneen parce que ba bu dëkk bi yëngoo rek léppay taxaw waaw léppay taxaw xam nga moom saafara bu ne la ju jàngoor dañ koy bàyyi parce que bu fekkee ne bu bu demee noonu ñëppay sonn ñi ñi ñi ñëppay sonn ñëppay sonn en principe ñëppay sonn ñi wet gi dañuy sonn ñuy xëy di liggéey dañuy sonn duñu xëy ñu xëy liggéey dañuy sonn ñoom it dañ ci profité ci mouvement yi def lu leen neex gis nga sa chaque fois su kii am manifestation amee ni muy demee ñi fa gën a nekk moo ñu xëyit gontul ñoo fay nekk am jot di dem di dikk di sànni xeer di wax mais am jot mën am liggéey ñoo fa dem état bi war a dimbali jeunes aussi ñu am ci lu ñu jàpp. mais exemple bu defee sorti def li nga xamante ne bi mu def euh, RFI euh, yéen sénégalais yi nan la leen def ak ak bi mu ko defee ak ak fi ñu toll tamit jamono ji ci réew mi ak li fi amoon. ah jaadu na bu fekkee ne mën na jot ci presse bi ci réew mi kay mu xool mën mën na jot beneen presse ci àdduna ci beneen ci beneen mu jot ca. parce que fekk na bi fii tamit ñu ko war a recevoir dalal ko wax ak ñoom dañ ko mujj di ko xas ñoom ne du leen fi bàyyi seet ñi nga xam ne duñ ko ñu déglu ko xam xam xam ni ñuy def ak moom loolu rek la mu bàyyi leen fi dem xool ñu ne parce que presse bi ci réew mu deful la ñu war a def ñoom ñee def ñoom ñoo koy def ñee ñee def ñoom ñoo koy def mais ñee defuñu ko ba finalement moom ci wàllu boppam waa bitim xam nu def ba mu jot ci nag waaye wax dëgg yàlla tamit baax na pour moom tey mu mën a yëgluwaat xam ni moom mi ngi sonn mi ngi nii mi ngi naa buñ ko fàttee doomu waa réew mi la ci réew mi bokk ñu ko war a taxaw ci dimbali ko dañ ko taxaw ci dimbali ko rek la moo ci nekk. jërëjëf yi nga jaajëf. waaw jàmm benn problème ñoo ko bokk jaajëf waay. asalaamaaleykum kilifa ñu ngi lay leen ñu ngi lay ziar bu baax a baax. waaw ki la bi nan la. tur bi Alaaji Buur Géwél la. Ah, Alaaji Buur Géwél ñu ñëwaat ci li nga xamante ne mooy coowal aji saar ah gis nañ ñu ngi démb def na déclaration wax ci li nga xamante ne tey mooy ci problème mu ak diggante moom ak Sonko ak ñàkk sécurité bi nga xam ne jamono ji mu ngi koy dund ak ci lu mu nekk tey en tant que sénégalais ñëpp xam nañ mois de mars li fi amoon ba ñëpp xam nañ tamit mois de mars ñëwaat na ci ci la def tamit déclaration bi est-ce que xel tamit du dem ci li fi amoon amaat fi. waaw salaamaaleykum wa nuyu askan wi. di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal tawféex ak tawsiir yàlla ñu ko yàlla defal waaw fii moom coow loolu moom ñu ngi koy dégg tey suba moom xëy na di dégg coow li waaye coow li coow li ñun dañoo bëgg xam lan moo ko waral maanaam ñun aji saar aji saar sonko sonko lan moo indiwaat loolu te loolu moom seddoon na ba daanaka kenn waxatu ci dara. dafa def benn dafa génn def benn sortie fële nga xamante mooy RFI dafa benn benn déclaration wax li nga xamante ne mooy jamono ji li muy dund. waaw euh, Adji Sarr moom man maanaam li ma koy mën a wax maanaam nit day am cër quoi ci doomu aadama yi waaw nit ku baax day am cër bu yàlla defee nga am ay kilifa da am cër xam li ngay wax ndax fii moom Sénégal la fii lu fi waay def sa bopp nga ko def lu fi waay def sa bopp nga ko def. nit ku baax day xool ni muy doxalee ak di ko waxee di ko def loolu muy wax noonu nag tegut fenn na bàyyi lu muy wax waaw man daal lool daal laa ci gisagut pour benn l'instant kon mu aw ma leen lu ma ci wax waaye daal ñun ñi nga xam ne ñun ñooy askan wi aji sax dañ ko war a jël teg ko ne te xam ne benn picc ta yàqam ndaje benn nit kooku rek ñu naan aji saar aji saar aji saar aji saar moom nan ko jël fàtte ko teg ko ne te nekk ci leneen aji saar lan mooy problème bu fekkee Adji saal dafa am ñoo xam dañoo nekk ci ginnaawam di ko wax wala li naan olof moom moo ko wax ne na ko ñimee dan laa dee loolu nañ ko jéem a gëstu xam lan la loolu bu ñu ko xamee rek jeex na. mais est euh, def liggéeyam parce que Adji Sarr dem ba ci joxoñ baaraamu tuuma justice Sénégal waaw loolu justice da see war a taxaw ndax am na loo xam ne nii sax bu koy nit di def ci askan wi loolu day tax nit ñi mu bëri amaat am doole sañ sañ-sañ goo xam ne nii maanaam lu waay neex def. nit bu tegul lu lut yoon nañ ko teg ci yoon yoon a koy jubantil loolu ñun ñoo ñoo fi nekk di wax nii nii waaye loolu yoon mën na koo lijjanti loolu bu bëggoon tey jii mu mat tey day mat day jeex kon loolu dañ ko war a lijjanti mu jeex waaye Adji Sarr benn nit mënut yàq dëkk bi kenn ku si nekk Adji Sarr Adji Sarr Adji Sarr Adji Sarr chaque boo xam ne ni moom bu dul jeex moom wala bu fekkee moom dafa bëgg leneen moom it mu wax wala bu fekkee dafa am ñoo xam ne dañoo nekk ci ginnaawam di ko doole nañu wax waaye Adji Sarr moomul réew bi ba tax na lu nekk mu wax wala lu nekk lu ko neex mu nekk Adji Sarr y'a quelque chose am na loo xam ne nii mu ngi ci ginnaawam Adji Sarr mu amul fit fit goo xam ne nii mën nay jël di tuumaal kenn tuumaal goo xam ne nii te bàyyi ne du bàyyi mu loolu mënul nekk c'est impossible nañ waxante dëgg te bañ a naxante mag muy caax tëddam néegam di saw boppam rek lay tooyal nan waxante dëgg Adji Sarr bu demee bay ñemee bay déclaré ay leneen i coow am na lu nekk ci ginnaawam li nekk ci ginnaawam nan ko wax loolu mooy wax ji. ci mois de mars gis nañ li fi amoon bi passé. waaw mu génn. waaw def wax ju mel ci li fi amoon. am nañ fi ay xale yu bari na fi. Mhm. seen i ñu leen jooy sax sa noppeeku ah. ñu. bu ko indaat lu mel nii tamit. bàkke sëñ Bamba loolu moom bu dakk day ñëwaat. maanaam gi nga ay da du yem ci loxoy boroom. kenn nit mën naa indi ay ñu koy ñu koy taamat di di wax aji saar aji saar wala nangam nangam nangam coow loolu dema dem dem ba jur keneen jot ci keneen jot ba man mii sax ma jot ci kon dafa am loo xam ne nii jërut koy wax am na loo xam ne nii moom jërut muy sori ay Sarr mooy li ma la rek ku ñëwee dañ laa dee sawaay Adji Sarr amul fit taxaw ak Sonko nekkoon nangam ak nangam nan waxante dëgg yaa ngi dégg yëbul suñu askan wi fi nekk nan waxante dëgg ay Sarr li nekk ci ginnaawam loolu la ñuy wax ki koy junj di ko wax muy wax loo di wax lu ko neex kooku lan war a wax kan la ñana koy may doole loolu buñ ko xamee rek lépp jeex waaye loolu moom tant que dakkut pàkki sëñ Bamba leneen dafay amaat lu graw loolu sax dafay amaat ndax ay saar am nay mbokk Sonko am na mbokk yaa ngi dégg tey ji yow loolu sa xol moo ngi ciy laaj man it même chose keneen noonu keneen noonu parce que tuumaal nit ki dafa rëy ci loo xam ne nag defu ko même sax bu ko defee yoonu kenn négocie yaa ngi dégg ñoom ñaar la ban koy defee ñoom ñaar la yàlla rek moo xam waaye nag a ah, waaw léegi ñoom ñaar ñooñu nan ko gérer tan bàyyi ñu parce que dem ba Eric fi di waxee tamit loolu si xalaatu Sénégal lan la war a impact. waaw yéen nag justement yéen ñi nga xam ne yéen tàllal nit ñi mikro yi loolu dañ cee war di bàyyi xel dafa am loo xam ne ku dikk rek nga jox ko micro mu wax loolu dañ koy bàyyi xel bu baax a baax parce que ñooñu yéen ni yéen yéen ñi yor journaliste yi yéen yéen ñi may doole tey jii ak ma jox sa micro may wax tey est-ce que man su ma xamul li may wax tey man naa wax loo xam ne nii xam nga mooy loolu kon boo lay yëgal seen micro di ko taalal doomu aadama day na xool bu baax yéen koy taatal waaw pour man yéen nag loolu moom seen fët la waaw RFM boobu mu dem xaw ma RFM xaw waaye RFM boobu mu dem noonu nan xool bu baax Adji saar moom mooy wala lépp lu mu taxaw di ko wax ci micro na ko xoolaat bu baax ndax xam nga askan yi ñoo seen nopp dañu ñoo ngi waaw kon maanaam daal dëkk bi nan xool li koy rafetal ak li xam ne nii daal maanaam du am coow du am dara ñu def ko moo gën. salaamaaleykum kilifa gi ñu ngi leen. maaleykum salaam sëñ bi euh, ñoo ngi lay fay euh, di la siyaar euh, bu baax. laaj tur bi maa ngi tudd Yaya Ndiaye dëkk Maris. yaa njaay ñu li nga xamante ne que mooy démb déclaration bi nga xamante ne Adji Sarr def na ko si li nga xamante ne tey mooy RFI wax si diggante moom ak ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko dem na ba nekk li nga xamante ne mooy kaaraangeem am tiit na si parce que bëgg na vie comme Sénégalais yëpp doxe ay yitteem doxe ay soxla mais boobu ba léegi mu ngi toogan di xaar mënu am loolu lépp en tant que Sénégalais ak mois bi mu ko defee mois de mars ñëpp xamoon nañu fi amoon di passé coow li fi amoon ba ay bakkan yi bari rot ci te la ngeen wax ci loolu. waaw di sant di santaat suñu boroom ba ba ci yàlla wi seen ndox mu sedd euh, ñëpp wax ci mu doonoon euh, actualité. réew mi nag dañ toll ci jamono joo xam ne nii mois de mars dañ koy sàggale suñu yaay booy yi ndax bésu jigéen ñi la seen bës la mu doon bës bu màgg lool ci ñoom. aji nag dafa aji nag dafa juum aji dafa juum parce que ñun ñëpp ay citoyen lañ et que àdduna bu fitna jógee li ko fay moo gën li ko taal te sama maam da daan wax naan euh, jàmm lu ko waay jëndee jar na ko bu mu sëf tayal ak ñak fayda te aji tey bu na jógee mu jóge ci moom te muy citoyen sénégalais comme ni dëkk bi di doxee mu doon jigéen mbir jóge ci moom ñu naan jàppal aji bàyyil sonko ba yàlla wi si ndox mu sedd su maay moom du ma ci waxati jigéen la amul lu may sànni ci deram parce que jigéen la lu mën a am jigéen la mais rafetul ngay waxaat ci di révélé loolu parce que li ma dégg si déclaration Adji Sarr métti na trop naqari na ma trop parce que boo nee justice Sénégal amatoo ci moom wóolute te yow nga ne da nga amoon sa justice réew wóolute ba ñu wax mbir mi mu sedd sunu kilifa diine wax ci ñëpp dox ci tàmm tànku jàmm kon nag jàmm lu ko waay jëndee jar na ko donc gëwuma ko man en personne jugé ma ko en tant que tel mais ko parce que wax nañ ci bu ne amatul sécurité aussi gëwuma ko parce que aji boobaag léegi mën na at ba amul sécurité ba léegi kon faatu woon na ngala nañu respecté ngala nañu jàmmal parce que sunu réew mi jàmm fi xaj dékkilaat problème dékkilaat coow coow la boo demee nag ba romb sa réew génn dem ci nasaraan si si seen télé di wax naka sudul noonu wala di wax loo xam ne ni mën na xambaat réew moom fàtte nañ ñi nga xam ne faatu nañ ci fàtte ne ñi nga xam ne njaboot ñi nga xam ne gaañu nañ ci am nañ ci ay tolof tolof loolu lépp ci jëmmu Adji Sarr la jógee ak jëmmu Sonko Sonko amul lu mu koy wax mais man toujours Adji laay wax ndax Adji mooy wax toujours moom moo ne dañ koo tooñ dañ koo violé xaw ma ndax neew ma fa mënuma ci wax lenn lu dul suma jàmmi réew un patriote koo xam ne patriote nga danga nga war a doxal sa mbirum sa mbirum réew xool lan moo koy jàmmal nga jàmmal ko daa juum solon doon maay moom wala mu am ay conseil wala mu ay mbokk dañ ko wax mbirum dossier boobu na ko teg ci suuf te gëm yàlla bu dee wóolu na yàlla na bàyyi dossier boobu ci suuf te deseeg yàlla ku dul yàlla neen la justice bi yeeg sénégalais yeeg mënoo fi yeewaat li nga fi yeewoon day ëpp ngir yàlla ak yonente bi nañu aji dimbali ci waxum viol nañu dimbali ci wër di wax ji na wàññi wax ji amul njëriñ da koy gaañ da koy sonal ku dund at problème am at ba at mi dellu nga ne doyaloo parce que justice bi waxagu ci yaa ngi yaat fitna dégg naa ci aji mu ne euh, bu yëgoon du bàyyi mu sedd kon nit ñi dañuy gën di nekk ci fitna dégg naa ci loolu aji wax ko ci li ma jot a dégg en fait pas moom à personne mais ci rumeur nit ñi ci li ma dégg ci revue de presse laay wax dégg gu ko ci la am làmmeenu aji mais ci revue de presse laa ko déggee aji wax loolu loolu rek dafa ñaaw dañu dimbali xam ne réew mi suñu réew la ñoo ko bokk Sonko dafa nekk ci yoonam aji ndaw la mën na wuti leneen yàgg nañ fi violer ay nit yàgg nañ fi rey ay nit yàgg nañ fi kii mais jàmm lañ soxla suñu réew mi apaisement lañ soxla suñu réew mi dal lañ soxla suñu réew mi kon nañu ñaan suñu réew mi jàmm rek moo fi xaj. menace menace yi jot ci yenn kii mooy parce que tout le temps mu ngi ne saa bu yoree piis da koy changé parce koy menacé sur réseaux sociaux yi ce que loolu tamit touché ko ba mu dem ci yeneen télé yi nga xamante ne tey ñu ngi si yeneen réew yi mu dem waxee fa li nga dañ koo xam dañ koy dañ koy sol rek parce que changé piis bu ñu la menacé ba gannaaw suba kan moo joxe sa numéro wala ñun ñuy dégg xanaa ay dof lañ. kan mooy joxe numéro moom buy wuti piis moom mooy wuti piis si turam kan mooy joxe numéro du moom mooy joxe numéro dañ lay menacer mais attends nañu dimbali li laay war a suuli quoi vraiment parce que dañ may menacer maa ngi changé ay piis tout tout le temps tout le temps tout le temps mais benn instant elle se de nous sérieusement ñun sénégalais yi sonn nañ ci kaaw Adji Sarr bu de bës lay wut bës bi doy na bu ko jigéen na doon mbër man je suis pas de Sonko ni de Massamba man je suis sénégalais et fier d'être sénégalais cest à li ma soxla mooy luy indi jàmm sama réew. parce que ñun dañuy am jàmm ju bari joo xam ne àdduna bi wërngal këpp amuñu ko jàmm nag lu ko waay jëndee da koo jar jàmm ak sante amul lu ko ëpp doole am lu ko gën a riche richesse doomu aadama fa la nekk. bu mu ñu indil fitna ci jàppal aji aji bu doon bu dañ koy menacé kon faat na bu yàgg bu doon ci menace rek lay dëgg ay changé pis loolu lu terre à terre lay wax nii bokkut ak yoon Sonko Sonko dafa am yoon politique am bu mu nekk di def du ma ne état moo si lii du ma si mais Adji Sarr ak Sonko laay wax nañu dimbali parce que aji moomuñu dañ koy menacé ak menace bi bu ñu ko doon menacé xanaa moom un an yëpp mu ngi doog wax dañ koy menacé un yëpp ñaata bis la ci changé ñun dofuñu bu mu ne mu bàyyi dossier boobu mu sedd te gëm yàlla bu dee wóolu na ko na bàyyi dossier mu sedd loolu laa am lu mu ciy wax jërëjëf maa ngi leen di gërëm di leen jaajëf